dëgg-dëgg ci euh, wàllu baay am na lu si bari loo xam ne foofu la jógee ñun xam nañu sama papa Diouf mii mu ngi nii toog duma bàyyi ma fen ñun suñu papa dafa am coloris bu am solo boo xam ne dafa amoon ak Ba Nges moo tax temps yële passé dégg naa kenn di ma tooñ naan kii di wax euh, euh, ministre Macky Sall yi am na koo xam ne baayam masseur la woon am na koo xam ne liggéeyam ak liggéeyu diw ma la ñuy taxal ñoom ñoo yokkoon baay ma ne man suma papa masseur la boo xam ne kinésithérapeute la jàng daf ci amoon plaisir ndax El Hadj Abdoulaye la doon maase papa Dame la doon maase Seyda Marème la doon maase te saa yu leen maase waan te saa yu leen maase waan dina am plaisir ñëw raay sama kanam. ne ma balaa ma raxasu dinaa raay sa kanam pour nga am barke moo tax ma sant ci am baay boo xam ne noonu la mel moo tax su ma ñëwee fii dinaa ko partagé pour sant leen ne wax leen ne naa ci li nga xam ne moo ci des mooy li ñuy def sànq maa laaj sëñ ndaw muy créer emploi te loolu lañ ma dénk ndax nag dëgg-dëgg lu ma gën a amal plaisir ci li ñu def mooy euh, day créer emploi loolu nag am na instrument yoo xam ne état bi am na ko te ñëpp ci war a bokk su ma ñëwee fii foofu du parce que taalibe bi moo tax may wax mais parce que sénégalais promotion de l' su ñu gisee ay initiative yoo xam ne dañuy créer emploi dañ si war a jàpp donc am na lu tudd convention nationale état employeur loolu instrument la bu président Macky Sall mettre en place nga xam ne li ko tax a jóg mooy ku jóg di def entrepreneuriat état bi da la war a jàppale pour entrepreneuriat bi taxaw ndax ruslu na suba ñu ne ana état fu mu nekk télé bi télé bu am solo la woon te pourtant mbiru emploi mbiru salaire moom moo ko tax a bañ a dem donc instrument boobu soo ko déggee mooy su fekkee da nga créer entreprise nga war a euh, employé ay nit war a employé ñaar te amoo doole boo leen employé état bi dafay jël xaaj bi maanaam kenn ki état bi moom moo koy fay loolu mën lañ ko dénk donc su ma ñëwee fii di déglu ñu wax ma instrument bu toll nii damay annoncé tamit que su fekkee ne pare ngeen pour récupérer ay nit soo leen ci amee fukk dinañu signer ak yéen convention ci direction emploi su ko defee ñu mun a jël salaire ñooñu incha allah bu neexee yàlla loolu dès lundi wala mardi soo leen ñëwee ma boole leen ak directeur emploi ngeen signer convention su ko defee xaaju salaire yi nga xam ne moom ngeen bëgg def ñu mun leen ci jàppale parce que loolu tamit si ngeen bokk ndax ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi ciy bénéficié wu yéen tamit yooyu ngeen ko maa leen di sant maa ngi leen di gërëm ci kàddu gi jërëjëf